asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa Dakar Plateau man euh, maa ngi tudd Pape Diouf di conseiller municipal euh, mairie Plateau nekkit euh, conseiller municipal à la ville de Dakar di nekk tam responsable politique au niveau de Dakar Plateau. dañu bokk ci kuréel. bokk ci conseil municipal bu Dakar Plateau maire bi fa nekk nag di Alioune Ndoye dañu gis mu def leneen lu dëppoowul ak li président woote mooy ànd boolandoo xàccandoo dóorandoo dañoo toog ci quartier yi ci koñ yi gis mu yónni ay responsable politique yoo xam ne waa partem la ñu war di jël ay carte pour ay ndimbal te dañu jàpp ne ndimbal yooyu dañ ko war a def pour ñëpp ñoom ñu jóg ko bu ko def pour seeni parti loolu nag moom yàggee na ko mais loolu dañ jàppoon ne yëfu politique la parce que man mii di wax a yow ñun nag ñoom ñoo àndoon ci taxaw Dakar biñ demee ba si biir ñoom ñu ànd feneen ñun ñu dem ànd ak Khalifa Sall dàq nañ suñu ay nit yi fa doon liggéeyee bu ay feet jotee képp ku ñu xam ne si ñun nga bokk duñ la jox duñ la jox ndimbal mais ñun loolu ci politique lañ ko tegoon mais nag tey jii boo gisee loolu ñu yuuxu ko dañuy jàpp ne fi ñu toll nii réew mi toll fa feebar bi tollu fa dañu war a def loo xam ne amul xaaj ak seen te yemul si ñun rek am na ñoo xam ne waa APR ñi nga xam ne seen président tey moo ko fal ministre seeni conseil bokk nañ ci ñaxtu bi yeneen parti yi nga xam ne ci mouvance présidentielle la ñu seeni conseil ñu ci mel ni waa CPGE seeni conseil bokk nañ ci ñaxtu bi waa PDS seeni conseil bokk nañ ci ñaxtu bi donc ñaxtu bi du ñaxtuwu parti ñaxtu vraiment ñëpp ñi nga xam ne ay conseil la ñu nekk ndawu askan bi parce que conseil municipal mooy koo xam ne moo war a jëlee ci maire bi indi moo war a jëlee ci askan bi tam yóbbu ci maire bi kon ñun tey li ñu def suñu rôle la moo gis loo xam ne muy raam te ñu xam ne fi mu jëm baaxul ñu dénoncé ko donc loolu daal moo tax ñu def déclaration bi bëgg tamit yemuñu rek ci loolu parce que nit ki doo wax lu la naqari rek te doo proposé leneen ñun conseil yi ay force de lañ pour maire bi comme que nag moom wootewul daje ñun profité nañ pour defal ko ay proposition parce que commune Plateau dafa nekk commune bu am solo commune la boo xam ne tey feebar bi risque bi fa la ëppee ndax ku xëy tey biir Dakar Plateau ngay dugg bu ñu xëyee dinañ recevoir lu mel ni lu ëpp 3 millions de personnes kon risque yi bëri na fa moo tax ñun dañu war a am taxawaay bu dëgër te yàlla dogal na ci 555 collectivités locales yi ñun am nañu ay moyens moyens yooyu nag la bugg a génnee ko. ñu génnee ko dugal ko si askan bi mais bu ñu koy dugal si askan bi nag amul xaaj seen nañu dimbale woon nañu dimbale ñëpp. Alioune Ndoye moom liñ koy tuumaal nii yàggee na ko ndax firnde bi mooy ñun rek wax naa ko sànq ku àndul ak moom du la jël nga liggéey te maire bi maire yi ñëpp la parti moo la fa yóbbu mais boo demee ba falu maire yi ñëpp ngay nekk. ku mu ku àndul ak moom buy joxe ndimbalu maire bi du la ci boole donc loolu frustration la boo xam ne dafa animé ñëpp acteur politique yëpp ak population yi nekk plateau yëpp loolu nag la ñu bëgg mu dàkk dañu bëgg mu dàkk xaalis bi du xaalisam xaalis bi donn ko xaalisu askan bi la naam moom la ñu jiital mais dañ ko war a def ci anam bu mu gën a leeree ndax ñun ñëpp ay sénégalais lañu ñun ñëpp ay population Dakar lañu ku nekk benn carte nga yoru on est tous d'égale dignité li ñu defal Jean loolu la ñu war a mën a defal Paul malversation mun nañ ko bañ a wax si lu ñu matérialiser nii mais nag jàpp nañ ne moralement malversation mënul passé lii ndax nga yor loo xam ne ñépp ko bokk ñépp ci yem nga bugg ko jox ñii xañ ko ñii loolu ñun dañ jàpp na dëppul dëppoowul ak yoon nga yor loo xam ne alalu askan la ci réew mi fu mu toll tey ñun waroon nañ nekk fi di wax leneen lu dul xëccoo lii mais nag dafa fekk ni olof Njaay dafa ne euh, wax danga koy wax fi nga ko war a waxee ak heure bi nga ko war a waxee lii suñu bàyyee ba mu passé bu ëllëgee feebar bi mun na dem toll foo xam ne nit ñi dootuñu bouger bu boobaa ndimbal bi dina am nu mu tëddee ba ñu lor ñenn ñi moo tax ñu teel ko wax léegi pour ñu teel ci indi saafara ñu si nag xeexuñu si mais moom mooy moom la ñu moom la ñu mun a interpeller pour ko mu changé mais gis nañ ne bi ñu ko interpeller ëllëg mu jëlee ko neneen mais daf ko jàppee xeex ak xuloo wax ay nitam ñu nekk ci réseaux sociaux yi di ñu saagaat di ñu stigmatiser mais ñun loolu soxaluñu li ñu soxal mooy que suba bu commencé li nga xam ne moom la ñu fi tegee muy dimbali askan wi mu koy def ñun duñ ko wax dara lu dul jaajëfal ko. ñun nag li xew si ministère am peut-être mun nañ ko xam mais nit ki ci boppam xam nañ ko du nit koo xam ne nit ku ku ku facile la nit ku dëgër bopp la waaw nit ku dëgër bopp la nit ku dëgër xol la mais nag ñun dañu bëgg jikkoom yooyu mu teg ko fële xam ne ñun li ñu boole bu dul woon mairie bi du ñu wax ak moom bu dul woon askan bi li mu ko fal fal ñu du ñu wax ak moom li mu yor nag moomu koo alalu askan bi la li mu yor nag askan bi moo ko jox kon ñun dañuy taxaw temm pour loolu noonu ñu jël ko delloowaat ko si askan bi fii mu réew mi toll nag vraiment vraiment ñu ngi koy lancer appel mu jël orgueilam teg ko fële mu jël xolam teg ko fële déglu ñu ak xel te ba ñu déglu ak xol ñun xuloowu ñu xeexuñu mais nag dafa am loo xam ne yoon moo ñu ko may ñu nekk ay ndawu askan bi bu xool bëgg-bëgg askan bi di ko ko soumettre pour ñu bañ ko jaar ñu jaar la ko si yoon ba ñëpp mun ci yem. fi ñu mun a dem nag sori na ndax lii du mbiru benn fan du ñaari fan ñun ay conseil lañ ñu dañu fal doole bi ñu am yoon moo ñu ko jox làmmiñ bi ñu am yoon moo ñu ko jox donc fépp foo xam ne woo nañu foo ñun dinañ ko wuyu su dee moom jàpp na ne ñun li ñuy wax du yoon na na xool moom li yoon mu def ko su fekkee ne jàpp na ne lu ñuy lu ñuy def lu ñuy wax yoon la na jéem a xoolaat boppam rectifié pour que waa plateau yëpp mun a jot ci ndimbal bi nga xam ne plateau moo ko moom dañu war a sant yàlla ndax plateau bokkul ci communes yi nga xam ne dañuy toog di amuñu budget commune bu ndaw bu toll ni plateau am presque budget boo xam ne mu ngi ci douze milliards tey li nga xam ne ñoo doon dem Màkka di dem Fès di dem feneen loolu yëpp amatul budget boobu nañ ko jël mobiliser ko fu ñu demee ba mi Dias bi nga xam ne suñu commune moo ko ëpp doole am sañ-sañu jël yenn engagement yi ñun war nañ jël lu ko raw donc ñun am nañ excédent wu huit milliards am nañ budget dix milliards douze dix douze milliards war nañu mun a taxaw convenablement dimbali suñu askan sans xool ci parti pris vraiment pour que feebar bi ñu mun ko xeex pour que askan bi ñu mun ko taxaw soxla nañ ko soxla nañ ko.